marhaban gane si bu président Macky Sall gane si waati waa woon ak procès ñel ay opposant yu ñu tegoon loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin ñoo gën a fës ci xëtu yéen kaay ya moom président Macky Sall nag ci nga woon ci Tiwaawoon ci gaaw gi ngir fekkee màggalu ko téeméeri at ñuy fàttaliku ginnaaw wàccu ko liggéey El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu yéen kaayu enquête nañu xalifa généralu Tijaan yi daal dinay ci président Macky Sall ak i kàngam ci opposition bi ngir ñoom ñëpp ñu déggoo ci benn kaddu su ko defee ñu mën a xeex ay noon yu ñu bokk di maanaam wàllum ñàkk gi di pauvreté feebar ak ñàkkum xam di maanaam ignorance yéene kaayu critique itam ne ñu Serigne Babacar Sy Mansour xaalif généralu Tijani daat nay digal président Macky Sall ngir mu nangul opposition bi seen ay critique waaye itam moom xaalif bi daat nay alerté président Macky Sall jëmale ko ci ay pexe yu ñu njortu ne ñu ngi koy nas ngir mën a taal réew mi yéene kaayu critique moo ko daal di xamle Vox Populi nañu xaalif généralu Tijani daat nay woon njiit réew war a tegu ngir jàmm mën a am ci biir réew mi loolee waral mu daal di sakku ci moom ngir mu bu baax a baax responsabilité ma l'observateur nañu Serigne Babacar Sy Mansour daal dinañu joxoñ baaraam lu mu jàpp ne noonu réew moo di wàllum ñàkk gi di pauvreté feebar ak ñàkk xam di maanaam ignorance yu mu jàpp moo xam opposition ak pouvoir ñoom ñëpp dañoo war a ngir mën a xeex mbir bu nu mel moom xalifa général Tijani ba tey yéede laas mu ngi dikkaat ci ay kaddu yu mu daal di jagleel ko président Macky Sall bu fekkente ne saa suñu ay kaddu rek nañu xalif général Tijani daal dinañ digal président Macky Sall di maanaam daal di koy conseillé ngir mu ànd ak tegtekaaral di maanaam le silence et ci jamono ji nga xamante ne réew mi daal dinay jaxasoo Sud Quotidien nañu niki tey jii la ñu fas yéene atte ji maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara député yi lee di Déthié Fall ak Mame Diarra Fam bokk na ci li ñu leen di toppee moo di bokk ci ab manifester mi ñu daal di tere ak trouble à bu compliqué lool lay doon bu fekkente ne daal nañuy teg daan di maanaam condamné yile kàngam yu far ci bi bi yéene kaa critique nañu ab rébellion daal bu ñu moytuut dina am ci biir assemblée nationale te lenn du ko waral lu dul ay député yu fas yéene ci biir pencum ndaw réew ma ginnaaw bu ñu tegee loxo ñett ci ay député ñu mel ni Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ak Mame Diarra Fama ci jojule jamono waa Benno Bokk Yaakaar coalition mi far ci mouvance présidentielle bi ñu ngee ci biir yéene kaay la Soleil di xamle ni politiciens yi ak ñu koy yëkkati ci Alioune Tine mi doon député yi la di Déthié Fall Mame Diarra Fam ak maire bu Guédiawaye bi la di Ahmed Aïdara ndar keppe kook nañu Casa Sport dar def ab doublé bu historique di maanaam jël championnat bi ak coupe du Sénégal suñu naataango yi nañu bi mooy ñeenteelu yoon Casa Sport di yëkkati coupe du Sénégal mu doon ab ñaareelu club mi nga xamante ne daat nañu kenn lam laamee bareetul ne fu mu toll nii Casa Sport moo teg tànk ci footballu Sénégal ndaxte bii la coupe du Sénégal mi ñu daal di jëlaate ci atum ren jile daaw itam ñoo ko jëloon na wal fajur quotidien nañu Casa Sport daal li mu def ci atum ren jilee daanaka jàpp ko juróom-ñetti at ba léegi amut benn club bi ko mës a def ci Sénégal di maanaam jël championnat ak coupe bi jàngeen jëf